barkeb borom tuba yaa mulhiman qad wafaqa salli ala man xuliqa wal xalqa faaqa xuluqa kal xalqi wal tusallimi barkeb cheikh abdou lahad mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak a ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko balim namm ci liggéeyu borom Touba bi yëpp mu def ko ni ko bëggee naal yi nga xam ne moom la sumbal Cheikh Al mu yeggale naal yëpp te sumbaat yeneen i naal waaye naal bu ci nekk yàlla na ko ànd ak nun taalibe yi talum ci woote yàlla bu nu ci kenn mën di ko ñaanal bu baax gànjaru yoon wi maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ am di Moodu Mbenda di ñaan sëriñ bi gën koo dàpp kattan di ko ñaanal mboolem njabootuk borom Touba gi ak mbooleem njabootuk cheikh borom Touba di ñaanal sunu buntu sunu kilifa sunu jëwrin ci liggéeyu sëriñ tubaab bi muy Seydina Hamsatu Mbakke moom Serigne Chouaïbou sunu borom kàttanal ko wéral ko ba lim bëgg ci liggéeyu Serigne Touba bi yépp mu def ko ni ko bëggee. waaye di ko ñaanal gayndeem gi Serigne Cheikh Ahmadou Mbakke waaye di ko ñaanal mbooleem ñi ànd ak moom liggéeyu Serigne Touba bi ñëpp. di jël nuyoo mbokk taalibe yëpp di ko teg ci jëwri Serigne Idrissa nga xam ne mën naa yóbbaale mboolem mbokki taalibe yi fi nekk yëpp. di ñaan sëriñ bi defal nu tawféex ci lii nuy gàttandu muy weeru màggal di bisum màggal ñu nekk ci weer wi sunu borom may nu ci ndam defal nu ci tawféex ak ubbi ko ban am bëgguk sëñ Tuubaa ndax damay wax ne ñett yii moo am ci yoonu murit ñett yii benn bi mooy li sëñ Tuubaa defal boppam te kenn fekk ko ci beneen bi mooy li mu santaane ñu defal ko ko ba ca topp mooy li sëñ Tuubaa def ba noppi sant ñu le ko ko lim fi defal boppam nga xam ne xam-xamu kenn rëxu ci mën-mënu kenn rëxu ci mooy xasida yi lim santaane ñu defal ko fi mooy jumaa ji lim def deflu ko nag mooy màggal gi te noonu ca loolee lan jàpp kon yàlla nu Sëriñ Tuubaa tawféexal loolu it damay wax ne sëriñ bi da cee niru yàlla aw melin boo xoolee alxuraan li muy rëy rëy yàlla da cee digle ba noppi digee ca la mu digle ba noppi terewaate xuppe ca la tax mu tere waaye amul lenn lu yàlla dikk ba noppi di ca wooteeg ndimbal lu dul benn yoon ci alquran muy inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sëñ Tuubaa ba yàlla ne jaam ñi sawara laa leen i jëme dane leen li leen waroon a mucc ci sawara teg ko ci sama kaw sëñ Tuubaa néewut kenn jàppale mag satta la néewut kenn kaanu ànd dana ñëpp toog leen bi lépp sottee mu ne kaay leen ngeen sant le ma yàlla loolu mooy niru gi sëriñ bi ak boromam ci ci jëflante bis bii waroon naa tax eh, war naa tax nit ñëpp xam dayob bis bii nu am dayob weer wii nu am te ñun rekk ñoo ko am loolu damay wax ne buñ nee màggal ñëpp xalaat ay xéewal waaye nan xam ne li jur màggal aw tiis la aku méttit aku naqar wu doon dal ci kaw Sëñ Tuubaa waxtu wu jot ak jamono ju ci nekk li mat a bàyyi xel mooy Sëriñ Moussa Ka daa wax ne lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ne làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkib jiili ne yàlla may shafiu kullu jiili may xaadimu rasuli fi suudaani may rammu xarnu bi ani niiraani yàllaa signé jox yonen ba mu signé gaa yi daal di jiital bamba lisaanu xaal mooy conscience tranquille waxanteeg bamba ca sóoru yuusufa mu teeñu yen ba lu conscience tranquille wax ak sëñ Tuuba dane ko man mii di ab nattu nga bëgg maa yenu yow sëñ Tuuba na nga xam ne nit mësta ñemee jël ab bëtam teg ko ci sama kaw man nattu yi ku ko ku góorgóorlu ba amut fitu yëkkati ma ku amu fitu yëkkati ma mën maa doxa mënta dox ak man ñi ci gënoon a jàmbari siggi nañ waaye mënuñoo dox suñ tuubaa tee nga ma fee bàyyi te romb ma jàll ni ñeneen ñi rombe mu ne yen ban yenoon bu ya ak abdal ya te attanun ko moo ko fab raw gaaye suñ tuubaa ndax da nga doon yug bi nga koy yenoo wala da nga doon raam mu ne déedéet doxinu déng-déng di wéy te tawatul balaaye sóoratul awaani la am ciy laay donga daara yi xam nañ déng-déng déng mooy boo mësaan a jugee ci daara ji waxtu añ jot ñu war a yalwaani ji am nga sa kër goo xam ne mooy sa kër ndeyu daara la ñuy togg neex na te sa préféré la nga yor sa potum ndagg teg ko ci sa kaw bopp di waaxu jëmali ji kër googa te doo jàppee pot bi ci sa loxo loolu mooy déng-déng li gaa yi attuntoon la sëñ Tuubaa yenoo déng-déng boole koog nag waaxu wu tàng te kenn séenut moom fam nekk sëñ Tuubaa ana ko jaraloon suñ Tuubaa daa wax ne damaa ñëw jamono damaa ñëw jamono eh, lu jiitu loolu sax moom suñ Tuubaa daa wax ne bu dul woon ak dimbale mbindee fi dimbale mbindee fi ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa fanaan ci kaw suuf jenn saa kon intérêt ci tax suñ Tuubaa fanaan ci kaw suuf mooy sunu dimbal xettali waaye beneen ba mooy liggéeyal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam loolu yi tax mu wax ne bi ma ñëwee damaa fekk jaam ñëpp waaxu takkatoo kenn ku ci nekk ànd ak sa pëstéef di waaxu di daw di dem sawara Iblis taxaw ci buntu sawara te naan gaaw leen bala maa tëj gaaw leen dugg si bala maa tëj sun borom croisé la ay baraam taxaw di seetaan Sëñ Tuubaa ne waaw yàlla jaam ñi nga xam ne yaa ngi leen di bàyyi nii ñuy waaxu di jëm sawara nga bàyyi leen ak Iblis mii te mu leer ne boo waxee rek affaire bi saafaraw ana lu tax nga bëgg cee maandu yàlla ne li tax ma bëgg cee maandu mooy ñoom dañoo yegg ci bañ maa jaamu ba noppi di ma bokkaale Sëñ Tuubaa ko waaw in asaw li xaflatin rekk la waaye lam yushriku bika ahad buñ la bokkaalee xam na ñàkk xam ne yaay yàlla taxul ñu lay bokkaale ak sàggante la bu leen ko jàppee nag yow yàlla si suñ borom ne ko waaw mën na maa muñ loola waaye leneen li ma mënta muñ mooy li ma leen di digal muy julli ak woor ak li ma leen sant ñu ne ñukk bañ ko fee def ana lu tax sëñ Tuubaa ne ko waaw yaa leen booleeg mbër mu toll ni Iblis ba nga ko mayee kattan ba nëgë ni nangu woo ko moo leen mag ëpp leen doole kon wuti gàllaaj yuñ daanee Iblis doy na leen yitte ci ci def sa ndigali li xaflatin la yushriku bika ahad mu ne ko kon ñoom seen seen jëmm yi ñoo àttanoowut mën a bëreeg iblis ba noppi mën a def sa jë sa jë sa sa ndigali moo tax mu ne ko wa innahum abdaanuhum laa diru taqdiru ala balaikan li doafin yacharu lompañ képp moo leen ko yóbbu waaye duñ ak bañ doo ak ñàkk def sun borom ne waaw nangu naa waaye li ma mënta nangu mooy seen xol moom particulière na lu tax seen xol yi kon mënuñoo jël génn ci adduna génn ci saytaane tàbbal ma ci man yàlla képp sëñ Tuubaa ne yàlla yaay responsable bu bolom xol yaa mu xallibal xuluubi xallib xuluubana anil xuyubi xol yi ci say loxo la tegg xoolaal ba ni nga bëgg xool yi mel ko nga soppi xool yi mu mel noonu bu boobaa ñëpp dana la jubu suñ borom ne ko waaw mën naa nekk waaye ci ay nattu laa koy teg sëñ Tuubaa ne ko natt boo mën di teg lu mu diis diis diis diis na mooy jaam yi ta nga teg ko ci man ahmadul xadim rasulillahi ca mbaax ga naan ko ahmadu natt bi dana diis de ba da nga mën a dem ak moom mu ne ko waaw bu dee lu ma mën a xam naa ko xam bu dee lu ma mën a gis naa ko gis waaye fo euh, ki euh, ki bind ruugi laa xamul fu mu àpp dayab ruugi waaye bu ma ko xamee bu ngeen bëgg liggéey bi yegg fa sama njop ab sama fit ak sama njàmbaar dana ko fa yóbbu moo tax yàllaa signé jox yonen ba mu signé gaa yëpp nag ànd ca signé booba daal di jiital bàmba nag bin jiitalee bàmbalu xew mooy sunu borom ci bappam moo wax Ahmadu ne ko Ahmadu bëgg naa la bëggeel goo xam ne loo ma mës a ñaan may naa la ko te lu ma la mës a may dootuma ci dellu ginnaaw loolu moom yàlla ko wax Sëñ Tuubaa ne ko loo ma mës a may naa la te lu ma la mës a dootuma ci dellu ginnaaw ci di ko nangu daan ne ko te yow Ahmadu yaa ma ñaanoon ne ma aaral ma Touba ba ab balaa du wàcc Touba te li ma la war a ay balaa la kon première cause bi mooy faaw nga génn Touba moom. واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيل الضامنة واجب لها الخير من الجهة الست وكفي عن الآفات حدني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول كفا نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد yàlla ne ko yaa ma ñaanoon ma aar dëkk bi aar naa ko kon mënatuma fee wàcce balaa kon Ahmadu première cause mooy faaw nga génn Tuubaa mu ne ko waaw pare naa pour génn tey mu ne ko dee taxawal bala ngaa génn daa am lu war a njëkk am génn gi mooy sa nijaay sëñ bu sóobee man yàlla dama koo rus te bu ma lay teg ay nattu dana xamut lu tax ma teg la ko dana ñaan dana ma ñaan ma teggi natt yi te moom sëñ bu soobee du ma delloo ak ñaan bu ma ko ñaanee danaa ko teggi te dootuma la ko tegati te dootoo bokkati ci kuréel kon lay tax génn gi mën a am mooy faaw sa nijaay sëñ bu soobee génn adduna ba noppi 1894 Serigne bu soobee génn àdduna sëñ Touba takk ay bagaasam génn Touba ngir bëgg a dajee ko ay nat ku dul sëñ Touba bu ñee la brigade de recherche ñu ngi lay wër suba Serigne bu baax boo xam da nga ko woo ne suba dañ maa convoqué ñaanal ma affaire yi sedd waaye sëñ Touba la yàlla ne dama lay teg ay nattu mu yàkkamtee génn Touba ngir dajee Touba euh, nattu yi moo tax mu ne xarajtu yow ma sabti rabi en safar li xidmatil muxtaari af dalil bachar man sëñ Touba takku naa génn ngir liggéey liggéey ci mbindeef mu bi sallallahu alayhi waaye nga xam sëñ Touba ak jini séem maanaam taalibeeb sëñ Touba war na war war war na am lu muy jomb ndax lan mooy sëñ Touba bi muy dem Jolof Jolof dafa metti Jolof dafa tar taalibe yi nekkoon Jolof pour ñu mën a dund dañuy génn di yalwaani buurub Jolof muy Sàmba Lawbe yëg ki yëg yëg fiiraange ci xolam ngir xamuñu woon woote te yàlla tax dañoo jàppoon ne nguur rek lay woote mu joxe décret ne taalibe sëñ Touba yii di yalwaan ci dëkk bi ku leen saraxati ma faat la ma la ku leen saraxati ma ray waaye sëñ Tuubaa ca dignité ya dégg wax jooju daan ne taalibe bu génna ti di yalwaan faatoo la tey dem sawara taalibe yëpp far toog waaye ana lu ko yàlla fayee mooy daa def dëkk bépp di ay mbëtt ku dul sëñ Tuubaa ci mbëtt yooyu nga doon dund bis boobu ba ci sàmbalaw bi ci mbëtt yooyu doon doon génn euh, Mbàkke Bari Jolof ci la doon dund moom sa euh, moom sàmbalaw bi loolu di wane lan dëgërug sëñ Tuubaa ci li mu nekk loolu bi mu amee moom sëñ nga xam ne génn na muy sababu baatin bi mooy li li dox ci digganteem ak boroomam ci digganteem ak jaam ñi waaye lool day am sababu zahir sababu zahir sababu zahir bi mooy lan mooy tubaab bi bi ñu daanee ma jaxu ca Saalum ba ñu daanee ma jaxu bés bu set tubaab bi daa defoon ci xelam ci ne doomu soxna yi bis dana jot ñu takkatoo def seen bopp muy wennu say ngir dal suñ kaw ngir fayul mabba jaxu tubaab bi da doon bàyyi xel loolu waxtu wu jot léegi nag jamono ji nga xam ne mu ngi bàyyi xel loolu sëñ Tuubaa am lu mu woote muy mbooloo mu bari la suñ Tuubaa woote ñu tàmbalee gis ci sëñ Tuubaa ak woote mbooloo mi di ko tàmbalee wuy si xamuñu woon woote yàlla ñu jàpp ne sëñ Tuubaa day woote adduna woote arme bu war a dal ci kaw tubaab bi moo tax tubaab bi wutoon ay agents yu bari ngir ñu koy surveiller sëñ Tuubaa ngir mbooloo mi ci lan la jëm am ci koo xam ne daa bëgg waaw góoru tubaab bi moom la ñuy wax maam Abdoulou am ñaaw njortu wax tubaab bi ne leen sëñ Tuubaa mi ba fa mujj lii muy woote ab armu la te bu paree ci suñ kaw la jëm ñu ne ko loolu dañ ciy dox ay dox maam Abdouloo daa dox dem dem dem Jolof di seeti Sëñ Tuubaa xam ngeen ne Jolof Maba Jaxu biñ koy daaneel moo yilifoon Saalum yilif Jolof yilifaale Jolof ma um, euh, Maba Jaxu moomu taxoon na ñoom it ñuy bàyyi xel suuf Jolof moo tax bi bi bi maam Abdouloo ñëwee ñëwee ñëwee Jolof ngir seet si Sëñ Tuubaa tombeek Samba Laobé moom sëñ Touba ñeex na ko ba mën a tuta tàqalook sëñ Touba ñëw seet si sëñ Touba léegi nag maam Abdouloo gën a am ak ñaaw njort ñaaw njort gi mooy lan mooy sëñ Touba jaxasoo na ak Samba Laobé kon li ñuy wax ci arme bi war a dal ci kaw Touba bi kon dëgg la maam Abdouloo bi mu gisee loolu day ñibbiwaat dem ba tollu Louga fekk fa tampoob Samba Laobé mu tàmpoo ko ci aw kayit dugg ruq moom maam Abdouloo bind ci leetar bi lii la bind ci leetar bi dane man Samba Laobé sëñ Touba yow gouverneur u man Samba be maak sëñ Touba ñoo ngi waaj arme boo xam ni buñ paree ci seen kaw la ñuy daal bàyyee boo ngeen xam lool daal di posté lettre boobu mu dem ndar lettre boobu la tubaab bi jot moo tax mu doon convoqué sëñ Touba waaye tubaab bi nekkutoon ci Sénégal di wër ay maara di leen jàpp ba sëñ Touba di numéro 4 ak 84 déedéet li tax ñu jàpp yeneen mara yi maa leen koy wax tey te mosoo leen ko dégg wallahi lazim sëñ Touba biñ koy jàpp amuñu benn mara buñ doon wër ci dëkk yi di la jàpp ngir di la convoqué di luñ leen di doyee amul sëñ Touba li tax ñu convoqué ko mooy leetar biñ ko tuumaal ne daa am arme boo xam ne moom ma moog Samba Laobé ñi ngi bëgg a dal ci kaw Touba bi loolu tax ñu doon convoqué sëñ Touba yónnee ko trois lettres maam euh, Samba Laobé première convocation ba la wuyu sëñ Touba yónnee nañ ko trois convocation te wuyu jiwut troisième ba la yónni woon maam Thierno Ibra Fati mu mel ne gaynde ca biir ndar moom maam Thierno Ibra Fati maam Thierno bi ko sëñ di yónni la daloon la daloon yonent yàlla Muhammad ca ba muy yebal yebale yaman ba Muaas ibnu ja ba Muaas Eh, sun borom tàppe ko ne ko Muaz mi moo lay demal yaman loolee moo xewaat ci jotaayu Sëñ Tuubaa boobu dane kat damaa bëgg a yónnee ndar ana kan mooy dem kenn ku ci nekk di am koy xalaat mujj gi Sëñ Tuubaa ne saa borom jox ma ndigal ne Cerno Ibra Faty dem dan ne ko Cerno waajal ta dem maam Cerno jug dugg ci biir di waaj taalibe yi fekk ko ci biir ne ko Cerno nag nang nu nang nu sagal sa sagar yii nga sol sa yére yu xotteeku yii dimbale ñu bul ko yóbbu ci kanamu gouverneur defarul te ay yére nag wutal ay yére yu bees sax nga demee ko ndar ndax sagalaale maam Thierno def ci xelam ne daa war a changé ay yére ñëw wax ko sëñ Touba sëñ Touba ne ko Thierno Touba lool Thierno xanaa xamoo ne li may def ci yow ci yére yi laa ko def ci yére yi laa ko def maam Thierno dem jàkkaarloo gouverneur maam Thierno bi muy dem fekk na sëñ Touba jot na trois convocation boobu dañ ne trois convocation boo wuyu dañ lay jël si arme bi waroon a jël si sëñ Touba jugee ndar départ nañ ngir ñëw daje nañoo maam Thierno Ibra Fati maam Thierno di dem ndar biñ maam Abdouloo gisanteeg maam Thierno ne ko andi lettre ma jox ko gouverneur maam Thierno ne ko sëñ Tuubaa mu baax mee ma yónni dane ma woon lettre bii bu bu jugee ci sa loxo na tege direct ci loxob gouverneur maam Thierno amuk way ci joxut kenn leetar ba ba jàkkaarloog gouverneur gouverneur bi mu jàkkaarloog maam Thierno Ibra Faty daa yàkkamtee tàqalikoo Thierno Ibra yi ngir gaynde gi mu doon ci kanamam ñu ne ko kii de moonte rakku ki ngay woolu boobu ba léegi la loolu gën a jaaxal gouverneur mu jéem a tàqali ko maam Thierno daan ne maam na ko teg ci yoonu jolof yi mu dem ñibbi maam Abdouloo ci caay-caay nee na maam Thierno gis na arme bi war a jëli sëñ Tuubaa maam Abdouloo def na ci xelam ne Thierno bu jaaree ci yoon wu norwaal wi jëm jëm Mbàkke Bari moo fay jiitu arme bi te bu demee dana ne sëñ Tuubaa am na arme bu lay jël kon sëñ Tuubaa day def pexe daw moom maam Abdouloo loolu la gëmoon daal di jël maam Thierno teg ko ci yoonu Ndakaaru wi maam Thierno jubal si a bi maam Thierno bi muy ñëw ba ba timis gi jot la gis benn biddiw mooy eh, ilmu nujum sëñ Tuubaa da ko daan jàngale maam Thierno bokkoon na ci ñi ci gëj géeju moo tax bu buñ gisee ak njabootam mel ci nii lu ñu jaaxal maam Thierno biddiw boobu la gis daal di far tegtaloo ci biddiw bi ba yegg si ci kër sëñ Tuubaa bi muy yegg si fekk fajar jot na waaye ajjuma ga jiitu samdiga ga sëñ Tuubaa daa dajale taalibe naan leen waaw woote bi gouverneur um Ndar di woote lu ngeen ci xalaat damaa bëgg kenn ku ci nekk jox ma ci sa xalaat am ci taalibe yi ne ko mbàkke doo dem fenn fii ngay toog gouverneur bu ñëwee ñu jox ko suñ bakkan baa ñu jël bakkanam waaye yow doo dem fenn am ci ñoo ne ko déedéet da nga ñuy bàyyi da nga ñuy yabal ñu dem ñun fekk leen fañ nekk taal fa ñu nekk bañ xam ne yow doo seen morom am ci ñu ne leen ah mbàkke daal boo bañee coow li di bari moom moom buubul rek te dem moo gën a sedd daal yow bu ñoom buñ xasee ñëw fii moom jàmm dootul am sëñ Tuubaa di laaj xalaat ba ci yàgg mu jàkkaarloog sëñ daam Abdourahmane Lo ne ko daam Abdourahmane Lo ana loo may xalaatal mu ne ko Mbàkke koo xam ne yàllaa koy jox ndigal muy def yonent bi di ko joxum ndigal muy def man daam Abdourahmane loo ëppante naag di ko jox di ko joxum xalaat mu ne ko Abdourahmane Lo xamal ne bu ëllëgee yowmal am yaay samaw lay ca kanamu yàlla bu ëllëgee yowmal xiyaam yaay samaw lay ca kanamu yàlla fajar gi maam Ceerno Ibra Faati di yegg tombeeg sëñ Tuubaa génnee ci jàkka ji dem jub biir këram daal di taxaw Ceerno yegg si tàmbalee wax mu ne ko ceerno dara matuma wax lafa xew lépp xam naa ko dal ne ko ceerno mu ne ko mbàkke mu ne ko bis ni ki tey duggaat sama kër araam na ma jot naa ndigalal sama borom damay dem Ndar dugg sama kër araam na ma daa di laajte njaboot gi njaboot gépp génn ci mbedd mi fekk si ko moom sëñ Touba mu daal di jàpp ci seen loxo jàpp ci loxob sëñ Modou saa jàpp ci loxo loxob sëñ Fallou daal ne leen dénk naa leen yàlla dénk naa leen rasulaay ak seen baay Cerno daal ne ko Cerno njaboot gaa ngi noonu Cerno njaboot gaa ngi noonu maa ngi dem amul kenn ku gunge sëñ Touba ci yoon woowu bis sëñ Touba daal ni waxaj dugg àll bi war ca fasam wa tuddoon xam du léegi jëmali ji ndar te xamul sëñ Touba booba diggante boobu mësu koo dox muy diggante Jolof ba Ndar xamul yoon woowu nu mu mel waaye sëñ Touba fétal di dem arme bi di ko jël si waaye sëñ Touba bi muy dem fajar googu fi mu bàyyi mag ñi mag mu ci nekk fa la sëñ Touba bàyyi woon nga taxaw jógewoo fa naanoo ndox defoo dara ngir jaaxle seen cër yëpp dem mag ñëpp jaaxle maam Thierno Ibra Faty toog sa ngéem ba mu yàgg mu woo sëñ ma banji sëñ ma banji daa déggoon sëñ Tuubaa mu ne ko ma banji mu ne ko Mbàkke mu ne ko dawal nga dabi sëñ tubaa ak foo ko mën a dabee foo ko mën di dabee nga ne ko Thierno Ibra Faty nee na ba nga wanee ginnaaw ba léegi doom jooytut ci ginnaaw ndayam xar yi lekkatoon fas yi sax buñ leen wuddalatee duñ ko lekk dara waralu ko mooy xamul fan ngay mujjee ak tubaab bi sëñ tubaa dajeeg tubaab bi nag jeewal bu leen fàtte ne yàlla ba mu bindee jaam ñi ba mu bindee aadama woo iblis ne ko sujootal iblis bañ yàlla dane ko danaa la feesalee sa wara iblis ne ko sa jaam ñi du ma leen may jàmm danaa leen jàddal ñoom ñëpp la aqudannaka ila siratikal mustaqim danaa leen jàddal sa yoon wi ba du la yàlla ne ko danaa la feesalee sa wara yàkku la topp iblis daan ne yàlla jëru nga naan yàkku ma topp ñëpp laa la wax ñëpp laa jàddal suñ borom ne ko defal ndànk nag sa température tàng na lool waaye inaa ibaadi laysa laka alayhim sultaan am naa sama jaam ñoo xam ne doo mën ci ñoom dara Sëñ Tuubaa bi mu yeggee jeewal dajeeg noon yi aaye boobu yàlla waxoon iblis la waxanteeg noon yi mooy inna ibadi laysa laka alayhim sultaan alif ga mu ne ayassa minnillahu inda jeewali iblisa isnadaytuhu bi yawali moom Sëñ Tuubaa ci jeewal bi mu dajeeg gaa yi gaa yi ne ko gaawal sunu kilifaanu yónni te nee na daa yàkkamti nga yegg si sëñ Tuubaa ni leen far naa sax jot ndigalal saa ne jeewal gi filaa war a fanaan mooy kiñ ne moom la ñuy jàpp si jàppee ko ab prisonnier war koo jël si arme bi koy jël si doon ay téeméer yu bari moom mu doon cundum koo xam ne mëtu 35 kilos sëñ Mudu Musaa nee na fajar gi sëñ Tuubaa di dem mouvement yi muy def mouvement yi muy def moo lay wan ne lii nit la waaye bu taxawee ne cundum dañuy jàpp ne yére bu nu wékki la ngir tuuti waay sëñ Modou Moussa ko wax nee na nee na cundum go euh, noonu mu dajeeg noon yi ñu ne ko sun sun kilifa dalaa yàkkamti sëñ Touba ni leen jot naa ndigalal saa borom ne jeewal gi sax fi laay farfar naan nag léegi gaa yi jaaxle nag xamuñu nu nuy def ak tiit ak ragal sa saase dugg leen ci sëñ Touba ndax la leen i màndal ñoom mooy iblis te sëñ Tuubaa nee na ci jeewal la iblis naagoo ne yàlla moom la nga waxoon ne say jaam mënuma ci dara ci sëñ Tuubaa mii laa ko gëmee kii laa xam ne aw ma fu ma koy jaar moo tax mu ne iblisa isnaadaytuhu biya wali nee na foofu ñu départ dàqi sëñ ma banji nee na Louga laa dabee sëñ Tuubaa Louga sëñ ma banji mi maam ca yoor yoor ga nee na Louga laa dabee sëñ Tuubaa nee na li ma xam ne sëñ Tuubaa rek kay góor dama fekk noon yi ko doon jël ñëpp sonn tëdd di nelaw sëñ Tuubaa nekk ci digg bi di julli waaye bi mu sëlmalee ana lu mu wax daa sëlmal daan ne ana kooku ma ne ko ma banci mu ne ma ana doonoon yitte yi mu ne ko Cerno Ibra Faati ma yónni mu ne ko ana lu mu wax mu ne ko Cerno de nee na bi nga wanee ginnaaw ba léegi doom jooyatut ci ginnaaw ndayam xar yi lekkatun fas yi sax buñ leen wuddalatee duñ ko lekk dara waralu ko mooy danoo xamut fan ngay mu ak tubaab bi sëriñ bi ne ko ma bañ ji ndeke yéen a ngi foofu ma bañ ndeke yéen foofu ma bañ ñaari mbër bu ñu waajee ci seeni kër ba yegg si ca lambu ja kàkk ju njëkk ja kay daan xam na kay daanu xam na waaye day fekk rocc ku wees daan ne ko tubaab yi daan ne leen bu yàgg daan ne ko ma bañ mu ne ko mu ne ko boo demee neel cernu ne ko ni ma dem ni ma dikki leeree ñibbi si ni ma leeree leeree sax ne noonu danaa dem daan ne ko ma bañ mu ne ko mbàkke mu ne ko demal ne cernu mu nekk ma damay liggéey ji rek bu ma dikkee ngeen añ damay liggéey ji rek bu ma dikkee ngeen añ Sëñ Tuubaa yoxoos ndar sëñ Touba le 12 août 1895 la yegg si Ndar la 5 septembre lay soog di jàkkaarloo gouverneur ana lu ko waral mooy ragal ga gouverneur amoon ci maam Thierno Ibra Fati moo tax mënagut a imaginer ndaka lay mën a mel bu mu jàkkaarloo kii di magi Thierno Ibra Fati le 10 août ba 5 septembre le 5 septembre bi ñu jàkkaarloog sëñ Touba gouverneur bi mu jàkkaarloog sëñ Touba ne ko yaa wax ne dangay waajalub armu ngir jëm sama kaw suñ Tuubaa dana leen woo leen kii ne maa ko wax ba noppi ma soog di tontu ci wax jooju ñu xam ne ay mbiram day day day day jafe li tax ñu konfete yeneen maara yi laay wax de tubaab bi nekkutoon ci dëkk bi di wëri maara di leen jàpp déedéet dañoo diisoo ci seen biir sëñ Tuubaa ko wax daan ne dañoo diisoo ci seen biir ana nu ñuy def sama mbir ana nu ñuy def ci sama mbir nee na la xewoon rasulilaay xewaat ci man ndax rasulilaay ba noon ya giisoo dañ nañ leen ko rey ñu ne ah buñ ko reyee nag yoon daal sunu kaw amuñu jenn la ju tax ñu mën koo rey ñu ne nañ leen ko tëj ñu ne ah buñ ko tëjee yàgg-yàgg day génn waaye sëñ tubaay nee na loola la moo ti xew ci man dane nañ ko rey ñu ne buñ ko reyee fan lañ koy teg ñu ne nañ ko tëj ñu ne buñ ko tëjee Ibra Fall Cheikh Ibra Fall génne ko dof la te am na xaalis mi ngi ndar di wëreelu buñ koy tëj mu koy génne ñu ne kon nañ leen ko génne ñu ne ngir ñu génne ko dañuy am ab sabab dañuy am lu wér luy tax nu mën a sukkandiku ci loor ngir génne sëñ tubaa ñoom tubaab yi ci boppam ñoo d'accord ci ne sëñ Tuubaa moom ku diñ la ci yàlla mi muy jaam xam ngeen nan la ñuy def mooy dañuy créer benn congrès dajale ay maara yu bari yu mel ne moom signaloo leen yàlla du buur leer nañu ne sëñ Tuubaa du ko signé ñoom ñoo xam lool ñu ne leer nañu ne sëñ Tuubaa du ko signé waaye bu ko signé wut ci loolu la ñuy sukkandiku ngir mën koo exile looloo waral ñu convoqué yeneen maara yi taxoon yooñu biñ leen convoqué ñu jikk kenn ñett ña njëkk woo kenn ku ci nekk da ngaa tawaxital yàlla ñu ray la jébbal la gaynde gi ci kanamu suñ Tuubaa suñ Tuubaa di gis dara jubluwuñ ko ci lu dul dañ koy xor xorñooñal ngir xam ne bu gisee ak dee mën naa dellu ginnaaw ci fitam wu rëy wi mu nekkee biñ naree woon numéro 4 sëñ Tuubaa moo jug daan ne ñii ngeen woo taxuñu leen a jug man maa leen tax a jug te bu ma leen bàyyee ngeen topp ñoom ñëpp danañ faatu ndax ay niti kese la man ngeen doon lamb daj naa ñëw taxaw numéro 4 moom sëñ Tuubaa looloo indi numéro 4 waaye tubaab bi woote wutoon ay 1 2 ba ñuy wootee 83 lañ woo 3 ya foofu lañ signé Sëñ Tuubaa leen 80 79 yi lañ signé ba ñibbi seen kër Ndakaaru lañ ko signé waaye bañ Sëñ Tuubaa lankee bañ a signé fa la projet boobu yem ndax Sëñ Tuubaa lañ soxla woon soxla wuñ keneen bi Sëñ Tuubaa signé wut lañ ne léegi nañ defar dossier yi nag léegi nag exil am na moom exil bi Sëñ Tuubaa nee na bi ma duggee ci saxaar gi ñu war maa jëmalee Ndakaaru nee na damaa dugg rek toog am ci ñoom ku ma yëkkati ne ma yow ngay prisonnier ba noppi bëgg a taxaw bëgg toog da ngay taxaw ba Ndakaaru nee na ma ne asiru mahal labrari hiina asiru wa sannalani daa nii hunaka asiru maa ngi dox di ànd ak gaa yu baax yi ak lu badar waaye noonu yàlla yi dañoo jàpp ne man a prisonnier laa ci ñoom ndeke wóor na yàlla seenub gis sax euh, euh, seenub gis sax ndeke yëgut fenn waaye man gaa yu baax yi ma ànd masiri mahal axyaari masiri mahal axyaari billahi nag la waxoon moom Sëñ Tuubaa léegi nag foofa la ci gën a xorom mooy mooy bàyyi na këram dénkaane nag njabootam amatut kër Mbàkke bari jolof Touba xamatut kañ la koy gis mu taxaw nag xusuuriya xallat wal ahlu han yi tafarraqat sama kër tas na sama njaboot tasaaroo ne dara teguma ko loolu fas yéene liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam beneen bi ci des dama koy corriger mbooleem waxkat yi koy firee noonu suñ Tuubaa waxewu ko noonu da ngay dégg ñenn waxkat yi ñu ne suñ Tuubaa daa ne isa sakartu saa bu ma fàttali ko saalikal mabita nekkum ñetti ñu ne guddi ndakaar yi Sëñ Tuubaa waxul loolu sëñ Tuubaa da ba ma ko fàttalikoo ba ma ko fàttalikoo ak saa bu ma ko fàttalikoo dañoo bokkut sëñ Tuubaa génn na ci ak jàmbat ba dugg ci ak sant moo tax mu ne saqaltu bi sukri ani sikaya dugg naa sax naa ci ak sant lu dul may jàmbatati kon sëñ Tuubaa dootul jàmbat dane jamono jooja ba ma ko fàttalikoo damaa naroon a jël xeej ngir dal ci seen kaw waaye rasulillahi moo ma dalalaat ana ñu def sëñ ba mu jaral ko mu war a jël loola sëñ Tuubaa nee na bi ma yegsee Dakaaru bi ma yegsee Dakaaru fekk waaj na néeg boo xam ne lépp luy rey nit te bon te xasaw lépp dañ koo dajale ci néeg bi ma ñëwee dañ ne ñoom ci seen biir dañoo diisoo daan ne maara bii daal ngir ñu mën koo pexeel lii ci loxoom moom la ñuy fexe ba mu tàqalikoo moom muy kaamilu bu alxuraan bi moom lii moom mooy kaaraay ngam buñ fexee ba nangu ko ci moom luñ bëgg ci yaram wi danañ ko ci def nee na daa di fexe ba nangu kaamil bi ci moom nee na daat koy tàbbal ci néeg boobu ñu ko tàbbaloon Dakaaru nee na biñ ko ci tàbbal bu max ko tàbbalee nee na bi muy dugg ciw xel la dagg duggee nee na tànkum ndeyjoor bi mu njëkkate samp daa lamb kaw tànk bi gis ne ak rab moo ci sa jàmba sar nee na taxut ma yeexal bu càmmooñ ba dama koo gaawal nee na ñu bës ma ci biir ma yam képp ci néeg bi am na ñu naan sëñ Tuubaa dafa julli julliwu fa dafa doon jàng alxuraan sëñ Tuubaa daa wax ne yàlla ko nettali eh, sëñ Maxtaar Silla la ko nettali moom sëñ Tuubaa dane biñ ma dugalee ci néeg boobu bu xat boobu ba mënumaa wëlbatiku yàllaa ma fa fekk ne ma ahmadu ma ne ko mbàkke mu ne ma ndaka mu ma ne ko alhamdulillah yàlla ne ma dama bëgg nga jàngal ma alxuraan alxuraan ji may jàngal fii nga nekkee ci ay xat-xat ak alxuraan ja ngay jàngee daaru xuddoos ñaari njàngin yi bu ma xàmmee ci ne yaa ngi ci bànneex wala jaa ngi ci naqar ma folli la dootoo bokk ci kuréel gi sëñ Tuubaa nee na ma tàmbali alif laam miim zalikal kitaab ba bay jeexal surtout maay da suñ borom ne ma xif ma du yaay jàmbaar nee na ci la njëkk a déggee yaay jàmbaar gu yàlla te demaguma ci ne nee na néeg bi mujj yaatu ci man ba ma bëgg sax sax foofu ngir ngir ngir féexaay gi ma am foofu ak neexaay bi nee na soxna Jaara ma fa fekk ni ma Ahmadu ma ne ko Mbàkke mu ne ma doxal nga liggéey tabul geesu kenn keneen koo geesu ku nekk dalay yàqal moom soxna Jaaratullaahi Maam Mariam Bousso sëñ Tuubaa war a déqi sëñ Tuubaa nee bi muy dem fekk ne gouverneur bi nekk fii yónnee na bataaxal gouverneur u Gabon lu mu ko wax dane ko ñoo ngi lay indil maara bi gën a dëgër bopp ci ñoom lii la ko wax moom ñoo ngi lay yónnee maara bi gën a dëgër bopp ci ñoom daan ne ko bu dikkee noo mën a def noo mën a def ngir jël bakkanam rek def ko lii may wax nag mooy lii ñuy waaj ñii te muy te muy te muy ay mbégte ay ay bànneex lii ci sëñ Touba daj laa lay wax sëñ Touba nee na bi muy jógee Ndakaaru dañoo bind lettre jox gouverneur ba nekk Gabon ne ko noo lay andil maara bi gën a dëgër bopp ci ñoom bu yegsee noo mën a def ngir jël bakkanam def ko sëñ Touba nee na ana luñ ma njëkk pexeel mooy am yeer pax moo xam ne dañ koo gas ba mu xóot def ci mboolem luy rey nit ba noppi tàngal ko ba tàngaloo kenn xamul nu mu toll nee na ñam-ñabal ko man Ahmadu ba ma ñëw ñu ne ma bërëb bee neex naa jaamoo yàlla nee na bi ma yegsee rek taxaw ci kaw jullikaay gi rek nee na bëtëx ci biir pax mi ñu gaaw suul maasel daan ne c'est fini Ahmadu moom faatu na sëñ Tuubaa nee na ci biir pax moomu laa geddee woon adduna ba ñi nar a ñibbi ba ñibbi barsax waaye yàlla daa xool ci daaru duniyaa ku ko ci doy ku dut man amut moo tax mu delloo si ma loolu day niroog wax ji muy wax ne amatta nii hatta daxaltu barsaqa nee na góor yàlla gu dekk fekk na fa Abdou Khadir Jeylaani ñëw na ci man ne ma dama laa bëgg a génne ci xat-xat yi nga ne ma ne ko waaw yàllaa la yabal wala sa mbaaxu bopp mu ne ma dama laa yërëm rek te xam naa ne am naa kàttanu mën laa dimbale fii nga nekk nee na nee na ma ne ko demal yàlla la ëpp yërmaan te moo la gën a xam samay mbir yàlla lay nekk nee na mu dem waa ju baax ju ñëw mu wax ko loolu mu dem nee na damaa jékki-jékki rek dégg am riir di ñëw ba toll ci salla alayka bi man ladayka musni alayka inda rimaayi alayka sallam dëbban wa karram man bii ka abdam a nee na ma ne gees muy soxna jaara moo ànd ak jigéeni àjjana yi nee na soxna jaara waxut ak man daa jàpp samay mbagg sànni ci biti ne ma ahmadu doxal nga liggéey bu la kenn yàqal nee na ñu ñu defaat pexe moom suñ Tuuba am na bis moo ko nettali sëñ Maxtaar Silla ba tey daa am suñ sëñ teg ab baraada muy tàng ci kaw taal bi am na ñu ne kafe la def am ñu ne ndox mu tàng la woon nee na sëñ Maxtaar Silla gis ne baraada bi tàng na waaye sëñ Tuuba laaju ko ko waaye moom gis na ne tàng na ngir mu jox ko sëñ Tuuba nee na mu yëkkati ko di ko jox suñ tubaa nee na daa jàpp baraada bi rek baraada bi lakk ko nee na mu wàcc wi cax loxoom fekk sëñ koy gis daal ne ko Maxtaar ñaw saf ñaw digale ko mooy wutal loo ko jàppee sëñ Maxtaar wut lu mu ko jàppee andi ko mu ne ko Maxtaar mu ne ko Mbàkke mu ne ko sawara ku dul sa waa ji ñemew ko daan ko Maxtaar liggéey bi ma doon liggéeyal yonent bi noonu yàlla yi dañ doon def ayu bis gu jot ñu jël ñenn ci ñi jàppoon lakk leen bañ defa ab dóom daan ko keroog saa móori bañ koy lakk fa la ma fekk daan ko ñëw na ba ci man ne ma damaa bëgg nga dox sama diggante ak sawara alaaxira daan ne ma Maxtaar moom de daa baax di wax sawara alaaxira waaye sawara woowu sax bu ma ko waxoon du ci lakk daan ko keroog bi mu aayee ñu lakk dañ koo lakk ba mu defub doom ñu sànni ci ndox mi daan ne ko maxtaar ay sawaa ji ba mu aayee bisub ñu war koo lakk lun doon tàngal benn lakk nañ ko fukk ngir xam ne lii rey gaa yi wëppul sawaa ji daan danoo tàngal lépp ba muy ba mu sooy ñu jëw ñu woo ma ma ñëw ñu ne ma yulub tàbbal ca biir daan ko ba ma ca tàbbee ca biir pour booba jege naa fa sedd boo xam ne ba fii may waxee yow sedd baa ngi sama yaram sedd boobu la sëñ Saliou doon woon sëñ Tuubaa ba bu sedd jotaan tànk yi di metti am na moom sëñ Tuubaa mu wax ne kenn ci tubaab yi daal ñëw daal ne waaw mbiru mara bi daal mi ngi ñu bëgg a sonal dama bëgg ngeen jébbal ma dossier dans cinq minutes ma ray ko ñu jàll ci leneen sëñ Tuubaa moo ko nettali boppam dane dane dane xam ngeen nu mu def kaw la indi kaw diir leer ga ñett ñu amul la koy jàppoo kawdiir mooy cin ci wolof dong leer mooy kubéer ga koy tëj nee na dong leer gi kubéer gi koy tëj ñetti waxambaane yu am kattan ñoo mën a attan kubéer gi ngir rëyaayu cin li nee na bi ñu ko ndee ñu teg ko ci kaw taal def ci ndox ba muy bëgga fees ñuy xam taal bi ba ndox mi tàmbalee bax ñu woo ma ma ñëw ne ma dugal ci biir cin li daan ne ko maxtaar tubaab bi lu ma waxoon lu dul ak mooy yàlla danaa ko def ndax maa ko jaayanteeg yàlla nee na biñ ne ma tabbi ci biir cin li damaa tabbi ci biir cin li ñu jël dongu leer gi teg ci jël lu diis teg ci ngir jàpp ne danaa def pexem jug pexem mën a génn nee na ma nekk ci biir cin li cin li di bax ma nekk ci biir cin li yàlla fekkaan ma fa fekku ñaareel ne ma ahmadu ma ne mu ne ma ndaka mu ma ne ko alhamdulilah mu ne ma damaa bëgg nga tagg ma ci sama ñaari tur yi di rahmanik adduna geeg rahimik alaxira gi sëñ tubaa tàmbali rabbi bi maa yasrahul lasaana qad faja bi jeexi afdali man lihi qad la jaa nee na bi mu yegsee ba ci yaa maalikal mulki yaa man jallaan xawadi yàlla dana jibril neel sëñ tubaa armu bi wàllu woon rasulullahi bisu badar pare nan lu mu wax ñu def ko ñi ci xambu taal bi mu ne ko irham jami halwara ya hadiyan radaa si Tuubaa nee na bi ma waxee loolu yàlla yàlla dana ma bu ma defee loolu kenn dootu demati sawara tamaa maa digoon ak sawara ak fees daal ni ko Ahmadu ñaan googu dama la koy soppil Sëñ Tuubaa ne ko loo ma koy soppilee ba xam bëgg naa sun borom ne ko dama lay defal képp ku faatooti ma xarub dënam fekk ca bëgg borom Tuubaa ma tabbal àjjana ci lu dut ma koy réglé Sëñ Tuubaa ni ko mu bind ko bindal mu ne wajul la si yuhibbu nii yàpp yadu yawmal wujudi suhada i tab yadu yaquudu lil jinaani man ahabba wa man lam yuhibbu li naari kabba nee na ma nekk ci biir cin li cin liy bax waxtu tisbaar di bëgg a sama xel nekk ci ne waxtu waa ngi bëgg a jot yàlla ne ma nekkal ci li ma la sant bu waxtu wax lu tax ñu war laa génne nee na ne ñu ne ah fi mu toll nii de moom sa fi war naa ñor xanaa war naa ñor nañ ubbi xool suñ Touba nee na kilbét ja ak burit ja ñoo ànd te loolu ñuy wax buur sax defu ma ko nee na biñ wa ubbee ci li gis ma ma toog seen xel ya fu waay toll di ko dégg te taxut sax ma yàkkamtee génn taxut sax ma yàkkamtee génn moom sëñ Touba ci mettit yooyu ñu ko doon def wut nañ fukki tiirkat ak ñett fukki tiirkat yooyu ñett yoo xam ne kenn mës ta mooy ci la muy yam ñu yeewu suñ Touba ci ak garab ba mënta yëngal benn cër kenn ku ci nekk ñu ne ko dàkkal cër ci sëñ Touba nga jam ko kii ñu ne ko dàkkal bopp bi kii ñu ne ko dàppal loxo bi kii ñu ne ko dàkkal dënn bi kii ñu ne ko mbagg mi ba fukk ak ñett yépp mat nee na tubaab bi ñëw ba ci wetu sëñ tubaa ne ko gis sag dee nag daa metti bu la neexee ñu takkal say bët nga bañ a gis ni ngay dee sëñ tubaa nee na tontuuma ko nee na ne suut ñu joxe ndigal ñu tiire kenn ku ci nekk ba nga tiiree la nga tiire ci sa kaw la jëm moo tax mu naan wëbalil wëbu fi sulaasa maa yuxu jilul asrata wa salaasa fii lay waxee naan xadd fa kabala xadd basa fadla fa dur walla wa nafu ji fa immédiatement fa googu immédiatement an nafu ji moom sëñ Tuubaa ci mettit yin ko doon def te dara waralu ko lu dul suñ jëmmi képp kese moo taxoon ba tey ci mettit yooyu mu doon dal sëñ bi ko ma bi ko maam si Anta fekkee ci àll bi àllu maa yomb bi àll boobu tubaab bi mësta yóbbu sëñ tubaab foo xam ne moom tubaab bi day dem ba egg si déedéet sëñ tubaab bu ñu ko waree yóbbu Libreville ak 3 kilomètres ak Libreville mooy doon camp bi bu bët setee dañuy yóbbu sëñ tubaab ba mu des ak Libreville 1 kilomètre ñu ne ko demal mu dugg ci àll bi fii sëñ tubaab daan nekk mbindeef musu faa dugg kudut moom. bu ngoon jotee sëñ tubaab yi ñëwaat ba foofu ñu ko andi woon ñooña tamit jàppaat ko yóbbuwaat ci camp mooy ñëwaatal sagoom ba fiñ ko fi ba fi ñooña mën a yem ñooña jàppaat ko yóbbu ci camp bi buñ xëyaatee indiwaat ko ba foofu bàyyi ko mu dem bu ngoonee mu wàccaat ñu jëlaat yóbbu ci camp bi am na bis dañ koy yóbbu suñ Tuubaa jot ci ndigalal boromam war a dugg xalwa ci àllu àllub làmbarna bi nee na ñu ñëw bi ñu ñëwee ñoom ñi ko war a jël si ñëw ba fi nuy xaar suñ Tuubaa ay yamb sonal leen ay yamb yu ngande ba ñoom ñu mujj tiit daw bi nu demee ñemewu ñoo wax ne ko ne leen indiwuñ wuñ sëñ Tuubaa wala gisuñu ko ñemewuñ ko wax waaye dañ ne est-ce que moom deewut ci àll bi ndax ñemewu ñoo wax ne andi wuñ ko te bu boobaa am na lu war a dal seen kaw ñu ne est-ce que deewut ci àll bi moom daal xaar nañ ko fi ñu ko daan xaar waaye gisuñu ko te ñoom danoo daw. jamono jooju la maam Thierno Ibrahima la maam Cheikh Anta ñëw Gabon ngir seet si sëñ Tuubaa bi mu ñëwee ñu koy xool ba càgg daan ne ko mu ne ko. ñu ne ko gouverneur euh, bu dee grand mara bi dëkk Sénégal ngay wër àll bii lañ ko mujjee gis ñun nag diggu yoor yoor danañ dégg muy bëmm waaye ñemewuñ faa dem bul wax suñuy njaatige nag ñoo la ko wax ndax ñun kat bu ñu waxee ne sëñ Tuubaa ngi ci àll bi ñoo ko nanguut a indi danañ ñu dàq baanu rey ñu maam si nee na boobu la sëñ Tuubaa nekk ci néegam boobu nga xam ne amut buntu néeg bu amut buntu maam si nee na bi mu duggee ci àll boobu di jàng alxuraan lu yàgg. lu yàgg dara yëguut mu jekk rek di jàng xasida ak lam yabdu mislul Mustafa Muhammadi nee na bi mu yegsee ba ci ba ci wa dalil gi nee na bi mu yegsee wa dalil daa dégg wa dalilu sëñ Tuubaa gi na wa dalilu sëñ Tuubaa gi àll gépp di ànd di wa dalil neena na fi la nekkoon sëñ Tuubaa mu amu buntu nee na bi mu ñëwee siñ Tuubaa gis ko daal ne ko Sidi Muxtaar fii ma nekk fii ma nekk wéet naa fi mën fee jaamoo yàlla ba damaa ñaan yàlla ne ko fii lay jaamoo ba wàcc fi ab liggéey tax ko toogu gee ngay gis rasul lay ci la toogoon ma koy tagg ci xasida wala xadd karam naa wajjahtu wajhi liman takrimuhu baana fi shahri mawlidi man fil bahri rabbaana nee na nen nee na maam si anta gën a yokk jooy tax ne ko mbakke tubaab yi la indi fii boo ñaanee yàlla ba wàcc fi liggéey buñ dikkee duñ ne yaa ñaan yàlla wàcc fi liggéey dañ naan ñoom ñoo la sàkkal pexe te bu te yow rek lañ amoon ci espoir ci Afrique soowu jant gépp buñ nee dañ laa sàkkal pexe buñ dikkatee lu nu waxati dañ koo def dañoo bëgg yàlla mi nga ñaanoon des fii ñaanaat ko ñibbisi nee na sëñ Tuubaa ko xaaral ma laaj saa dugg ci biir génn ne ko sa borom nee na nangu na dama ñibbisi Sénégal waaye ñaan naa ko ne ko sëriñ ba ma leen digoon jox ma ko ma yóbbaale mooy ijaal rujuu'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jami xalqi niiraana nee na maam si Anta nee na man laaj fi ma gis fi sëñ Tuubaa doon toog dem ba sotti xalima yi toll nii fi sëñ toog rek espace nee na ma ñaan ko ndigalul yeesal bërëb bi nee na sëñ Tuubaa may ma ndigalal ma yeesal bërëb bi nee na ma yeesal ko yeesal ko ba waxtu tisbaar jot sëñ Tuubaa ne ma Sidi Muxtaar waxtu tisbaar jot na taxawalal ñu julli sëñ Sidi Muxtaar taxawal ñu julli muy maam Cheikh Anta nee na bi mu li xaamee ba ñuy julli rakka bu njëkk bi nee na sëñ taxaw ba ci yàgg mu gis lu mel ni kaña génne ci àll bi dugg ci yére yi sëñ Tuubaa yi di lëx-lëx te gisul sëñ Tuubaa di yëngu benn yoon nee na mu jekki-jekki gis mu génnaat taqrib ak deret addunaam bépp tukki moom maam Seex Anta nee na biñ jullee ba noppi Sëñ Tuubaa ko Seex Anta lii de xanaa jaaxal na la mu ne ko waawaaw Mbakke mu ne ko nekk gi ma nekk fii di dugg di dundal di di liggéeyal yàlla li fi nekk tey dundee ndawal ci sama yaram wii lañ koy dund mu ne ko seexanta fii ma nekk di liggéeyal yàlla mbooleem luy dundee ndawal mbooleem luy dundee ndawal ci sama yaram wii lay dundee te sañu ma koo bañ te dara tegut loolu suñ Tuubaa lu dul nekk ci àll li dundee ndawal di dundee aw yaramam muy dagg aw yaramam ci waxtu wu ngir liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moom loolu dem na ba yegg ci moom Sëñ Tuubaa di wax ne bi muy nekk ci géej gi daa jaayante woon nag bu may tagg yonent bi ba yegg si ci aw turu Muhammad dama koy tëb dama koy bindee daa ju xong ci biir liggéey bi moom Sëñ Tuubaa daa xong ji jeex gisut Ibra Faati mu ko yónni gisut Ibra Faal mu ngi ko yónni man dumbe nag waxatuma la ko nee na Sëñ Tuubaa ne naay jëlu turu Muhammad bu ma amee daa ju xong remplir ko waaye Sëñ Tuubaa am mbindam daa gaawoon mbindam moo gaaw nee na diir bu gàtt mu gis lim tëb bari moom Sëñ nee na ma ne xalaat sama xel na yar ne deret ji daw ci sama yaram daa xong nee na mu jël pilim bi xotti yaram wi deret ji di toq muy sëpp di bind turu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom lay wax ne dammi wa ahli wa awlaadi fidaa'un lii sanada ku ma sa yegg fii rasulillahi yegg fa yàlla amut ci Sëñ kon nanu bàyyi waat xel kii di Sëñ lim doon def ci 18 safar gi ñuy màggal ñun toog leen xaar ma ma liggéey ji bu ngeen dikkee ngeen añ te loolu nañ delluwaat ci alquran alquran moo jox suñ Tuubaa pouvoir bi mu am yàlla daa waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha alladina amanu man yartadi minkum an diini fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibuuna wa yuhibuhum adillatun ala almumin aizatun ala alkafirin yujahiduuna fi sabilillahi yàlla daa wax yonent bi neel gaa yi gëm yàlla yaa ayuha alladina amanu la wax man yartadi minkum an diinihi képp ku sàgganee diina yàlla ji fa sawfa yaati llahu bi qawmin yàlla dana andi weneen nit woo xam ne yuhibbuunahu wa yuhibbuhum dañuy bëgg yàlla yàlla bëgg leen ñu ne waaw yàlla nit noonu nun leen i xàmmee mu ne azillatun ala al muminin kenn du bëgg a am daraja ci sa kanamu morom jumaa ju sëñ Tuubaa yilif ñu ne dañuy xëccoo imaam kenn mësu koo dégg moom fukki murit dañuy toog kenn ku ci nekk di kaang di fóore waxtu julli bu jotee ku ci nekk bëgg sa morom jiite la ngir nga barkeelu ci moom loolu Sëñ Tuubaa rekk la ko yàlla defal mooy azillatun alal muminin waaye aisatun alal kafirin duñ am complexe ci leen bu buñ demee ci ñuñ bokk ak diine loolu exemple bi ma ciy jox ensemble Sénégal bi lu jiitu 2000 ku fi dugg présent ngay wuyoo costume ngay sol léegi nag complexe ñàkk complexe gi yàlla def ci ak murit moo tax da nga fay duggee sa bàyyi laat sol sa laa fa ñu nga ne mbàkke du mujj fenn mooy a'izzatun alal kaafiriin waaye lu ca yàlla teg dana yu jaahiduuna fi sabilillah yonente bi lañ laaj demal ci say Buxaari da nga ko fekk muslim da nga ko fekk maa xaqiqatul jihaad mu ne xaqiqatul jihaadi bil amwaali wal anfus dëgg-dëgg jihaad ci alal lay amee ak ci sa deret moom la alquran di wax ne inna allaha sare min al muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna loola sëñ Tuubaa moom la yàlla rafaatale ñoo nit ñooñu yàlla doon wax mooy ak murit mooy da ngay jur jox sëñ bi jur tuddee sëñ bi da ngay am doom tuddee si yëblaat amaa doom tuddee sëñ Saliou amaa doom tuddee a Jaara mel na yàlla daa daggali sa njur nga koy yàlla aka neexoon nga may ma keneen ba ma tuddee ko sëñ Murtada ba tey xalaatagoo sa baay yow ba noppi loolu liggéey jox ko sëriñ bi loolu mooy li yonente boo xam ne inna allaha sare minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna li sëñ Tuubaa def ci ñun nag mooy fexe ba njëkkin joxoon yàlla mooy sunu bakkan ak sunu alal bañ a ge eh, defar ndax li wuute nit ñi mooy dañ ne yàlla dana leen dama leen di jaay ñu ne yàlla loo ñuy jaay mu ne àjjana ñu ne ko loo koy jaay mu ne seen deret ak seen alal gars yi ne ko waaw bëgg nañ ba noppi ba yàlla bëgg leen a jox àjjana ñu bëgg a toppaat ca njëggat joxoon yàlla ngir daw ci ca ba noppi bëgg am seen marchandise bopp loolu la sëñ Tuubaa dindi nag moom daa fexe ban fàtte mar euh, njëg gi joxoon yàlla te ne jàkk ci marchandise mi nu yàlla wala euh, livré loolu mooy loolu mooy tawhid gi sëñ def ci ñun loolu nag ci la sëñ Tuubaa nekkoon waxtu ci jot ak saa su ci ne beneen bi ci des mooy sëñ Tuubaa ñetti exil la am wala ñeent ñaar yi génn na dëkk bi ñaar yi génn bi ci biir réew mi la bu njëkk bi mooy Gabon Gabon benn intention la tubaab bi amoon mooy ne sëñ Tuubaa bàyyi yàlla mi muy jaam baanu jël ba ba ca des mooy gànnaar gànnaar benn intention la tubaab bi amoon mooy sëñ Tuubaa moom nañ ko tàqalee ak taalibe ndax gànnaar sori na taalibe yi duñ ko fa fekk te dana am complexe ci woote lii muy woote ca naar ya te naar ya moom amuñu ak ak ak dellu ginnaaw di gëm nit ku ñuul moom loo taxoon ñu yóbbu ko bu dee bu dee ciyeen jolof dañ koo bëggoon a tàqaleeg taalibe yi tamit dañ ne ciyeen jolof amutu yoon te tàng na néexut a dundee taalibe yi buñ sobee ba dem fa sax danañ dëppaat dellusiwaat ndax foofu néexut a dundee far foofa gën a neex nu ne léegi kon mënatuñ dara ci tàqalikoog taalibe waaye nan fexe ba taalibe yi jaxasoog adduna mooy njaareem jurbel ville la bu fa nekkee nit adduna yi di jaxasoog ay taalibeem tawhid bi mu bëgg a def si taalibe yi du sotti looloo taxoon ñu indi ko biir njaareem ndege sëñ Tuubaa nee na leen bu ngeen géntoon baa ngeen xalaat lenn ca la ma war a fekk njaareem seen xel du mës xalaat ci yóbbu ma njaareem raamu masiri ila jurbel la daa lasasin law ha yenu sirrama fi sayri ma raamu loolu nag loolu nag nga xam ne moom lañ réeré woon ba tax ñu yóbbu sëñ Tuubaa foofu ci ci njëreem la ko ca fekk mooy tey lii xéewal gii nuy dundee xéewal gii nuy dundee moo fa fekk sëñ Tuubaa ndax dafa wax ne bi mu jaayanteeg yàlla 1895 ngir dugg ci natt bi yàlla da koo joxoon sart ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne natt wi nag moom naa la ci xamal ñaar yi moom kenn mënta tax mu deñ ba ca njëkk mooy oh moom sañoo ko wax moom oh oh ñu teg la dara rek nga ne uh wala wokkatu wala geesu bokkutoon ci liggéeyu Sëñ Tuubaa moo tax daa wax ne bi may yenoo yen bi yàlla sàkkal na ma malaaka moo xam ne ci samay wagg la ko teg yenn baat rekk la koy dégloo dégloo ci man muy baatub uh daan ne waaye am satu mu ne ko Mbàkke mu ne ko malaaka moomu topp na ma ci géej gi topp ma gànnaar topp ma ci yéen jolof ba sama ñaari ati fii ci njëréem te yàlla dogal na mës a dégg ci man ak oh bis ki tey la ko yàlla wàcc ne ko dootoo dégg ci moom oh te beneen ba ca des mooy yàlla da ne ko woon nattu yi ma lay teg at mu jot multiplier la ah 1895 10 nattu laa la teg 96 20 lay doon 97 40 98 98 80 99 160 noonu la demee ba 1917 1918 sëñ Touba toog di xaar nattu nattu yi ñu ko war a fulal dikk sëñ Touba toog ba yoor-yoor gisul benn nattu. mu ne waaw man baadu daa am lu dox ci sama digganteeg sama borom ba nattu yi ma daa teg moom gisuma ci dara gisu dara 19 jot gisu dara 20 jot gisu dara Sëñ Tuubaa jaaxle Jibril fekk ko fa Jibril ne ko sa borom mi doon tege nee na dootul teg te dootut bàyyeeti kenn muy teg bés ni ki tey ba ilaa yawmi yub'asuun ay teraanga képp la lay fay daal ni ko Ahmadu yàlla nee na sant na la santu lu mu la ma sa teg ci benn fan liggéeyal nga ko ci waxtu lum la mës teg ne la ngir bis liggéey nga ko ci benn waxtu danne ko nag fii ba yow mi ilaa yow mi yupp ansuun na ma doon defeeg yow nattu yi ni laay defeeg yow teraanga yi tera bu ma la joxee ren fukki teraanga déwén moom ñaar fukk laa lay jox muy vingt déwén jéeg ma jox la quarante déwén naati jéeg ma jox la quatre-vingt déwén naati jéeg ma jox la cent soixante looloo waral murit bu ci nekk fi mu toll ci màggal gi bu déwénee mu gis yàlla fulal ko ca lam nekkoon yàllaa koy fayee noonu moom sëñ tubaa ndax moo ni toll nag waaye nag bi sëñ tubaa di ñëw li ca gën a neex mooy ëmb bi sëñ tubaa indi sëñ tubaa daa wax ne saa borom jox na ma ci géej gi ay mbir leeralul mbir yi nag ah, mbir yi moom leeru waaye ay mbir la wax yoo xam ne dootu tàqalikoo ak man ñu ne waaw sëñ tubaa ginnaaw ba mënoo ñëw wax ëmb bi lu ci ne xanaa mën nga ñoo juñu lan la mu ne ay mbégte dong la demal dane malik niyal yow ma malik niyal yow ma mbir moo xam ne laa yu faarixu minal bu saareeti fan fil bahri jiiraana mooy ëmbub sëñ Tuubaa bi ëmb boobu nag mooy li xettali ñëpp xettali ñëpp mooy jaw fal faraa lii sarmadan wacc hal masiriya jaw fal fara lil wara mislal maharini mooy teraanga yi Sëñ Tuubaa yi teraanga jooju nag ci la nekk di ci dund di ñaan Sëñ Tuubaa mu saxal nu ci nu faatu ci ba li gën a li gën a dansé ci am murit nag Sëñ Tuubaa ko waxal boppam dama koy baamtu fu ma mën di toll Sëñ Tuubaa daa mës a woo Sëñ Amsatu Jaxate Sëñ Amsatu ñëw Sëñ Amsatu bi mu ñëwee fekk Sëñ Tuubaa ci melokaan woo xam ne jàpp na ne waru ko cee fekk mu nar a dëppaat sëñ bi daan ne noonu naa kooku Amsatu mu ne ko Mbàkke mu ne ko bismillah seen sëtu ñëw nar a toog ci wetu càmmoñ gi mu ne ko am sëtu neel nii ci wetu ndeyjoor gi seen sëtu toog ab diir mu ne ko am sëtu mu ne ko mbàkke mu ne ko ku amul puutar te mënoo jam baa boo mënee jam ñeme woo ci àll bi da ngay seet dànn bu mën a jam te ñeme ci àll bi nga jébbal ko say puutar dandi ko am sëtu yéen ñi ma jébbaloon seen puutar sooyu leen ndax dugg naa ci àll bi li ma ta rëbb rëbb naa ko indi naa ko togg naa ko yàkk naa ko desut lu dul ngeen seetal loxo yi ba mën a jëfandiko seen sëtu daal di waaf daal ne ko mbàkke de buñ sañoon mu ne ko am satu sañ ngeen mu ne ko mbàkke noonu de taq gi yàlla nu ko bindee ba mënatunoo set te sun taq gi xajamul sa set gi te sa set gi suturaal na sun taq gi danoo bëgg nun mën a def nga dimbaleen suturaal nu ba jëfandiku ci rëbb yi mu ne ko am noonu la soobee sa borom dal ne ko am satu mu ne ko mbàkke mu ne ko loolu dafee gaar waaye taxutoon ma woola li tax ma woola mooy jibril alayhi salaam léegi la fi jóge ma lay wax ne lu weesu tey boo ko fi gisatee kon sañam su daanoo gis lu weesu tey boo ko fi gisatee du ndigal lu may indileeti du du du du xam-xam bu may indil waaye siyaare si ma képp ko fendi ndax li des saa digganteeg saa saaborom saa seppee na ko ci ne wu tabbi ci biirum soow te ko ci waroon lu toll ne tarpatalaay ni mu seey ne kawar guñ tabbal ci biir sawara dañ ko am satu mu ne ko mbakke mu ne ko saa borom xamal na ma ne murid nañ bàyyi xel lool sëñ tubaa dane sëñ am saa borom xamal na ma ne mooy yàlla gi gën a rëy mooy ngeen di ma tudd di tudd keneen sëñ satu daan ko mbakke euh, fasuñu ko yéene sëñ bi dem ba am lu muy bëgg a waxaat jël kaala gi daal di taf ci gimiñ gi daal ne ko am satu li des saa borom daa mu feeñ fii waaye ba booba daa nëmmut mu feeñ fii waaye ba booba am na ci mag ñoo xam ne sëñ tubaa ci am xel la daan waxee ak ñoom sëñ mu du ci anta sëñ tubaa ci am la daan wax ak moom daa mës ñëw sëñ muudu baa ci anta fekk sëñ tubaa yor kaamilub alquran juutal ko muy wax ci am xelam naan waaw kaamilub alquran moom deen na ko juutal nee na sëñ tubaa tontum xelam daal ne ko muudu baa bàcc anta maa sañ lu kenn nee na muy xalaataat naan waaw am xel moom nees koy tontoo sëñ bi ne ko Moodu Bàcc Anta inna allaha la yaxfa alayhi shay'un yàlla dara nëbbuut ci moom sëñ Moodu Bàcc Anta moom bis daa mbokkam mu faatu mbokk mi da du am murit mu bëgg sëñ Tuubaa ñaanal ko waaye rus na koo wax nee na mu ñëw toog ko xalaat bu jàgg sëñ bi ne ko Moodu Bàcc Anta ci bal suuf te indi ma ñaanal ko nee na mu ci bu suuf indi ñaanal ko ba noppi daal na ko yóbbul waaye boo demee dina am kersa lool nee na sëñ Moodu Bàcc Anta nee na maa ngi toog fi ma xalaat fi ma toog di xalaat naan waaw ñi jamonoon teeg sëñ Tuubaa mën a jaamu yàlla lool te mën a sellal jaamu gi te joxuñu seen bopp sëñ Tuubaa ndax ëllëg danañ am àjjana sëñ Tuubaa daal di jékki-jékki daal tontu am xelam daan di ko Moodu ci Anta lu dul fees de ku ne da caa xaj waaye cey kon dul fees ku ne da caa xaj waaye cey kon kooku mooy ki wane boppam am na bis moom sëriñ bi ci boppam mu wooluwaat sëñ Mouhamad Lamine Lo Dagana ne ko damaa bëgg nga jàngal ma mujjug sóoratul kafi sëñ Mouhamad Lamine daan ne fa man kaana yarju liqaa rabbi fal yaamal amala saalih wala yusrik bi ibadati ahada mu ne ko ana lu suñu borom wundee wax ci mu ne ko sun borom dane ku jàpp ne danga nga moom ëllëg yowmal xiyaam na ngay jëf-jëf ju sell te ko bokkaaleeg dara mu ne ko ana sun borom wax ci ku ko bokkaale mu ne ko yàlla nee na dana jéggale bàkkaar yépp ci coobareem ba mu des aji bokkaale nee na sëñ bi ne tekk ab diir daa ne ko Mouhamadou Lamine mu ne ko Mbacke mu ne ko sallaw yàlla mën a muñ ci ko bokkaale fekk ma ci man Ahmadul Xadim daa ne ko man de su ma sañoon a am làkku xol lenn lay doon mooy ñu di ma tudd di tudd keneen danaa ci jël naqar woo xam ne bu ma sañoon saadi tay ba ñëpp xam ne man Ahmadu càppaacuri laa man ak madu càppaaculi la mooy kon sëñ Tuubaa mooy yàgg bëgg ku ko ber ginnaaw bi ko yàlla bere ndax daa wax ne afradiyallahu bil ifradi daa di waxaat feneen daan ne nafaani nafaan bihi anfaridu niamal karimul akramul munfaridu yàlla defal na ma teraanga yoo xam ne fekkuma ca kenn ba ma ne ca yàgg kenn fekku fekkuma ca kenn dootuma ca fekk man képp maa ko moom man képp maa fa nekk la ko waral mooy mag yàlla bokk fu nu nekk nu ne ko sëñ Tuubaa bindal mu ne barra anil xaaliqu min wa man la yurwa sarwahu ci lépp lu dul moom ba man ak moom képp a nekk ñu ne ko xanaa wéet ngeen mu ne déedéet jikko yàlla nu wéetali jikko yàlla mooy alquran borom xam-xam yépp nangu nañ ne alquran laysa maxluqun sifatun min sifatillahi sëñ tubaa daan ne kitaabu rabbi kaana lii waaye man it wa kuntu fan la huwa bi bihi sakkantu kon sëñ tubaa moom wax na position moo tax sëñ bay jaxate ne ko yow fa nga nekk yàllaa fa nekk kenn du fa nekk ku dul yow ak moom képp kuy làmb sëñ tubaa te lambee woo ko ci yàlla doo ko mas a daj am na bis moom sëñ Tuubaa mu wax ne fa laay daanalee samay kàddu daa am bis mu toog ak mag ñi di leen di leen di leen di leen jàngal daal di tomb ñetti tomb moom sëñ Tuubaa daal di tomb ñetti tomb eh, muy triangle daal ne bii yàlla bii rasulilah bii man Ahmadu daal ne yàlla de bi mu sàkkee jaam ñi sama digganteeg moom rattax na ci demlanteeg dikkalante ba mujj mu ànd ak man jàpp ci sama loxo ba andi ma ci rasulilah waaye bi ma ñëwee ci rasulilah néew ma ko xam naa buur néew ma ko damay dégganteeg buur néew ma ko mas naa gis ak buur dama ne dàkk ca la ma buur sant ci moom mooy di ko tagg di ko kañ di ko tàgg di ko kañ ba mu jëlaat sama loxo jàppaat ma yóbbuwaat ma ci buur nee na bi mu yeggee ci yàlla dana yàlla loo ma mës a jox jox naa ko ahmadu mii te taxul mu teggi xalimaam te man as gor laa joo xam ne bëgguma mu may wax te amatuma lu ma koy jox te mbooleem lu ma yoroon jox naa ko nee na yàlla ne ko xanaa du nubbuwa gi yaa ko dese nubbuwa gi du yaa ko dese mu ne ko waaw mu ne ko kon am nga loo dese loolu mooy dikkaalub sëñ Tuubaa ñaareel mooy dal lan yàlla ala xayril wara nee na bi ma yegsee jës bu laa jël bi ma yegsee ci wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura walam yura fi chiyami ahmaduna rahmatuna hamiduna nihmatuna mahmuduna farhatuna wal juudi musri diyami rasulillahi daa jàppaat sama loxo muy waqaadani xayril wara li sil wara tegaat ma ci loxo yàlla ne ko fi mu toon nii moom fura xëddeen deseetuma dara te yow yàlla doo jeexal te dama bëgg nga teralal ma ahmadu mi nee na sëñ Tuubaa na bi ma yàlla bi ma rasulaay boole waateeg yàlla dama ne rasulaay may ma ma tagg yàlla rasulaay ne ma du sotti loolu mënta ne ndax man ci bandoo xaasim laa bokk bannii xuraysi am na ndey am na baay am naa njaboot ami soxna neex na maa tàgg waaye yàlla moom lam yalit wala mu yulat boo koy tagg ana foo koy jaar bayit bu ca topp inni uxaatibul jamil musalliyan ala rasul musalliman ala wusul fi adbihi wa kalbi daan ne ko bés ni ki tey kon xaatam bante gi ma doon defanteeg yow tey nag maag yàlla ñoo jàkkaarloo nee na analu yàlla wax rasulaay dane ko dama bëgg nga àtteel ma jaam yow rasulilee ma ànd ak ahmadu mii dem ci sama nguur ga sama nguur ga nga xam ne bëggoon naa koo nguuru te téewoon jaam mi nekk ci te jaam mi ma ko tegoon daa ne daa di ànd ak ahmadu nee na bi mu waxee loolu sëñ tubaa daa far ñaari rëdd yi ñetti rëdd yi daa tomb ñaari rëdd daa ne bii yàlla bii man ahmadu képp daa di wëd wër gu rëy daa ne lii nag mooy yàlla bi ma yegsee yàlla damaa boy ci nguuram gi dana ma yaa maalikal mulki lii wa saata duuna jawan fil mulki wal malakuti dëhre yàllaahu daa di wax ne bu ëllëgee ma xiyam ba yàlla atte jaam ñëpp ba ku ci nekk dem fa nga war a dem man la yàlla ak rasulillahi di puukare woo daa xam ngeen lu ñuy wax ab géwal ñu ne ko mbàkke bëgg nañ koo xam mu ne mooy ko xam sa yu baax dila ko nettali te du am réyug nettali ko fenn ñu ne ko waaw mu ne ëllëg yawmal qiyaam yàlla ak lay koy def ci man ñooy dem ci mboolem bërëb yëpp di ma fa waxtaanee di ma fa tudd te naan leen lu ngeen ba yegg si waaye ahmadu moom mës a def lu ko a laa di fekkee loolu lay wax ne chakartani inda jamihi jundihi raamu siyarati mahan min hindi moo tax sëñ bay jaxate jël xalimaam ne ko yàllaa ngi naan la jërëjëf yeneen ba naa la jërëjëf sëriñ si naa la jërëjëf ndax ndam yëpp yaa ko jël ku yàlla far di sab géwal yeneen ba far di sab géwal sëriñ si far di say géwal ku la way du la soxal ndax ku la way gis ku la way ku la wayut gis ku la way ku yabu noppi baa nga way ngir am nga tànnee fi géwal loolu la ko sëñ bay jaxate wax li tax nag sëñ Touba mat a liggéeyal mooy lam waxoon sëñ Mor Khary si ak sëñ Mor Basine si da leen ma sa woo ne leen wutal leen ma mattum sump ñu dem wuti ko ba ñëw bi ñëwee fekk sëñ tubaa fatu kenn ku ci nekk teg saw say toog ci kaw say bi sëñ Touba nee tëll ubbi kenn ku ci nekk tëral saw say tëdd ci wet gi sëñ tubaa ñëw wër leen ñetti yoon taxaw ci soow bi jublu penk ñu nekk ci kanamam mu ne Mor Khary si mu ne ko Mbàkke mu ne ko sant leen yàlla yàlla mi leen tax bëgg dara indi leen fu am dara xiir leen ba ngeen def fi seen dara na leen leer ne da ngeen am dara noonu it yàlla na nu yàlla defal dara ci dara daraam yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullah